c'est vrai il y a eu des rejets e loolu c'est c'est la grande équation à résoudre parce ça? que on ne peut pas comprendre nga am carte d'identité boo xam ni moom nga recopier toutes les données qui le propriétaire signale la mhm. nga dem présenter ko ñun la introuvable du introuvable du fichier ça pose problème mm -hmm. et donc boo xoolee ñi fiy défilé ñëpp am problème euh, de parrainage loolu la on vous dit en dehors des doublons il y a un nombre important boo xam ne nekku ci fichier ah, na ñoo xam ne ñu ngi koy dénoncer jamono ji surtout ñu ñu euh, seen euh, dossier de parrainage vous vous n'avez pas ce problème mais leur combat est-ce qu'il vous engage même bu fekkee ne romb ngeen étape boobu. Eh bien entendu boo xoolee man bi ma génnee euh, conseil constitutionnel ci sama déclaration. Mhm. ñun ñoo jëkk jàll ñu valider suñu candidature ñu éliminer ñu dimanche ñu supprimer ñu plus de plus de mille parrains yoo xam ni dañu wax ne nekkul ci fichier mhm. bi. may def déclaration à la loolu laa jëkk fi cisé et j'ai dit que l'éternel combat de l'opposition muy concerné l'inaccessibilité du fichier électoral mm-hmm. moom mooy fi ñëwaat tey parce que kenn xamul li nekk ci fichier électoral amul benn opposant bu am accès au fichier électoral mm-hmm. et sur cette base la ci la ñu defaree logiciel bi xamuñu les contours du logiciel personne ne maîtrise le logiciel donc hormis le le ministère de l'intérieur nga xam ni ñoom c'est un répondant du du du président de la république un répondant du régime ñoom ñoo xam. parce que lu disait en 2019 mooy que ne dafa nekkoon phase test ñàkk ay manquements entre temps cinq années jàll na yéen tiré ngeen leçon yi travailler en solo pour seen yëf mën a baax mais. Euh, bu fekkee ñi koy vérifier à leur niveau ak système bi ñu teg 2019 ak 2024 ndax jàpp nga ne avancé am na ci. non amul avancé du tout parce que ce qui et ça a été l'éternel combat de F24 et d'une partie de l'opposition mooy que mm-hmm. ni que ñu revoir le système chaque entité indi sa technicien ñu xool les contours comment faire un euh, n'est-ce pas un système comment concevoir un système boo xam ni dina am transparence ni dina xam les tenants et les aboutissants malheureusement amu leen ci ndam malheureusement amuñu